ginaaw bu ñu sante yalla jullu ci yenen bi sallallahu alaihi wasallam sallam sant seexul xaddim bu wéré wér sant si ñu yaakaare tay ak ëlëk Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Serigne Souhaïbou sant gi ñi sant Serigne Cheikh diko ko ñaanal mu yagg fi ñu diko jawal mu jëm ci Serigne Sidi muhtar ndax man Abdoulahat kenn birne wu ne ci kaw suuf sama yaakaar tay ëlëk sama serigne Touba ci kaw suuf Serigne Cheikh sayla Serigne Cheikh Say nak te léppum Serigne Sidi Mokhtar la waaye man ki nekk sama kanam di Serigne Touba mooy Serigne Cheikh Say moom laa koy xoolee ci kaw suuf ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di siyaare Serigne Abdou Lahad Diakhaté de village Touba Mosquée sama nijaay sama xarit sama lépp mën naa ne taxawaayu Serigne Cheikh Say la taxawee ci man baabu garaw di santit Abdullah Lahad Ka maire Touba muski, bi nga xam ne ne moo mbooleem lu aju ci Touba waye buñ sa ko tuddé tudd Serigne Abdou Lahad rek mbooleem kuy chef de village wala nga yor ndombal tank ci bi Touba dug nga ci bi tam googu yi. di len wax ne mbooloo mi ginnaaw buñ len santé gërëm len ñoo ngi len di encourager ci and gi ngeen and ak ñun grâce à soxna ñu mbacké ndax ñun dañoo nekk ci kanam di coordonner waye sama Njóoba mbolo mi gàcce ngalaama mom Serigne jam ñong koy sant bu baax diko ko di sant mboolem go xane ñi ngi doon and ak yow liggey bi sama discours nak ma joyal ko jëmeul ko ci président de la république waye ci cant gi ñi sant président ci teewaayu ministre ministre conseiller Isma djum fàttewuma ko sax dama ko bëgg a bu baax ndax dama xam si ki ma jëm ak ci ki may wax. honorable député yi fi teew yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm bu ñu tuddee suñu màgg jaaxate tudd Abdou Lahad Seck tudd nañ ñëpp madame Mbaye ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal ndombal tànk yi mu yor yàlla na yàgg ci moom te leneen topp ci. di sant mbooleem responsable politique APR bu fi nekk jeunes yi ndax man ci ñoom laa bokk suñu xarit suñu nijaay Moustapha Cissé Lo gis nañ délégation Mor Lo ñoo koy sant di ko gërëm xanaa nag ngir bañ a guddeel rek tënk lépp xëy na discours bi nga xam ne moom lañ defoon en français defoon defoon nañ ko en waaye day gudd waaye dañuy jooyal suñuy cant suñ ñi nga xam ne ne mënuñoo dem sans ñoom muy jeune marabout à Touba ñi nga xam ne ñoom ñooy ñun ñooy ñoom mbooleem kuñ bokkal suñ Tuubaa tañ bokkum euh, tañ tañ maasee yaa ngi ci jotaay bi ku ma tudd sëñ Moodu du tudd sëñ Abdu Xudoos rek yóbbaale nañ ñëpp sëñ sëñ sëñ sëñ Saalum sëñ Moodu Abdu Xaadir tamit noonu waaye sëriñ bi maa ngi jéggul rek ci nuyoo bi ak sant bi yemale ko foofu di wax na ne liñ tënkoon ci discours bi bëggoon nañ ko mu jotal waaye dafa guddi na kenn ku ne fi ñu ñibbi dafa sori waye ñu jotal suñu li nga xamne ne moy objectif biñ am ngir and liggéeyal président de la république ci département Mbacké na ñuy ay doomi Touba président de la république dafa ñëw jiite rew mi bimu diké xalaatam bu ñëk ci rew mi moy dafa dafa dem région par région village par village ndax man xamna ci dara ndax Touba barkee jigéen nga xamne moy fa la samay daaray bàyyi nekk ma nekk fa président de la république ñëw na fa am fay fan tëdd ci néegi ñax kon kooku bu ne xam na Sénégal xam war naa xam Sénégal kenn du ko si gisaak waaye nag wër gi wër ba xam jafe-jafe réew mi mu dikk Touba gi xam li Touba aajowoo li Touba woo te kenn diwu ko fi mu defal leen ko ñëw Touba indi fi autoroute Ila Touba boo xam ne ne niñ nga ko waxee léegi mosu fi am ci Sénégal gépp ñëw Touba andi leen hôpital boo xam ne ne yaakaar naa amul benn dëkku diine bu mu am rawatina ci région yi mu andi ko andi ko ci ab département andi ko ci ab commune kon yaakaar naa foofu am na fu mu teg Touba. président de la république liggéeyam bi njëkk ci Touba mu xam ne ne Touba ki fi nekkal Serigne Touba muy Serigne Sidi daal ak i rakkam seen seenu liggéey bépp mooy tool yi ak daara yi mu def ci daara yi loo xam ne ne amul benn président bu fi ñëw def ko fi si. buñ buñ récolté gerte grâce à président de la république de la république yi ñu béyee président moo leen ko may ñu wax ko ñu ñàkk ko wax. kër goo ci dugg ci kër sëriñ si da nga fekk tracteurs yu bëri yoo xam ne président de la république moo leen ko jox. Abdoulaye Wade du ñëwoon na fi kenn ku ne benn tracteur la may Macky Sall dong moo leen may ñaari tracteur ba ñett ñu ñu jaay benn bi def ko seeni tool wala ñu tabax ko liggéey ci. yàlla des ñu yóbbu ko jaara yi te rek. kenn koo xam ne ne may na Lat Lajjër na Lat yoo xam ne boo ko doon jaay doo da nga ko jaay soixante-dix millions kon kooku président de la république wàccoon ak ñoom la ko tàmbalee sëñ Sidi Moxtaar nag ba ci suuf kenn kenn koo xam ne waar nga li la président de la république defal amul kon kooku sëriñ si buñ buñ li leen war mooy jël seeni doom teg leen ci terrain bi ñu politique ñu campagne président de la république mu gagné élection yu ñuy dëgmal loolooy wax ji man nag wàcc naa sama waajur wàcc na ndax maa ngi ci terrain bi di liggéeyal président de la république sama waajur sant na ko ndax taalibeem bii mu jël jox ko ndomal tànk amul dul moom kon li mu ko defal mel la constitution bi gépp doon ko waaye ba tey Serigne Cheikh mi ngi ànd ak président de la république tous les moyens yëpp yoo xam ne ne sans condition grâce nag man ak Soxna Jóoba ak mouvement MDS waaye communication bi gën a wóor daal mooy mouvement bi li ñu ko li tax ñu yëkkati ko mooy devant notre président de la république élection législative yi ñuy jëngmal ak yi si kanam ab dëkk nag ña war a défendre président mooy ña bokk ci dëkk ba doon doomi dëkk ba xam dëkk bi li may jëf suñu kër baay yeeg suñu kër mag yeeg suñu kër rakk yi ñu di ko xam man koo wax dañoo jëlale li nga xam ne ne moom lay def seen dëkk yi ñoom seen dëkk àll yi dëkk àllu sëriñ boo fa dem fekk nga fa mu président yóbbu la fa courant yóbbu la fa ndox moomu doon a am loolu kuñ ko defal ku ne da ngaa waxuñ yow sax waaye war a sacrifier say taalibe ak say doom ñu gox ci terrain bi gagné liggéeyal président de la république kon ñun dañoo def suñu warteef waaye fekk nañ président def li ko war ba pare loolu mooy engagement yi mouvement MDS nag développement social la waaye femme département Mbacké ndax président dafa am yéene ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi rawat na département bi te département bi li fi ëpp solo lépp mooy jigéen ñi liggéey ñooy ñaq di jariñu di yor seeni borom kër kon loolu dafa aajoo communication boobu ñu jàllale ko xam ne ne président na bàyyi xel bàyyi woon xel jigéen yi département bi waaye na leen gën a bàyyi xel rawat na département Mbacké départ département bi rawat na commune de Touba Mosquée kon Sèye Blaat. kenn sikk sàkkawut ci ne bañ la joxee wilaat beeg léegi ci la ma xam ndax man maa ngi sa biir ñaari at yi nga ko jiite ku dem ku dem ci dem ci ku dem ci banque yi vérifié da nga gis ne defal nga 38 mbootaay yoo xam ne ne kenn ku ci nekk sa chiffre d'affaires bi nga bi nga leen financé yaa ngi ci di millions ci année bi ñu génn te waxee woo ko fenn kon yaa ngi jàppale président daal bi ci wàllu financement waaye soxna Ndiobo Mbacke mii mbooloo mu toll noonu ngi ci ginnaawam. waaye aajo woon na ko ku ko jàppale kon ñoo ngi la koy dénk di bëgg nga jàppale ñu ko bu baax baax ndax euh, ñu ngi liggéey ci wàllu euh, diwlin yi ñuy segal ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon moo tax mouvement bi ñu taxawal ko moo mu nekk ci kanamu jigéen ñu ànd ko di liggéey président de la république ndax xam ne ne Abdou Lahad ak Soxna Njóoba nekkuñ ci gannaaw benn responsable dañoo xam ne ne dafa def dafa réaliser Touba loo xam ne kenn kenn ñi fi nekk ñemewuñ koo wax ndax dañ am na lu ñuy sédd waaye nag ñun ginnaaw bu ñu amee lu ñuy sédd ba pare xam ko dañuy génn ci ay ci teggin ak ci biyar wax ne président defal na lii suñu waajur defal na lii suñuy rakk defal na lii suñu mag jeune mara bu fi nekk président may na la passeport diplomate kër sëriñ goo dem doomi sëriñ bu sëriñ président may na la passeport diplomate booy dem mu may mu daggal la bee waa ba wala ko ko jege daggal la bee yaa ngi may dégg kon nag ñun amee la njukkal président may loolu nañu nañu wàcc terrain bi comme ni ko sëñ Boukoundour waxee léegi ñoo ngi àndandoo di liggéey waaye Abdou Lahad mënta dem bàyyi ay ay ay jeune marabout yi mu àndal ndax ñii bi teew di ay di gone mbàkke mbàkke yëpp xam nañ ñu leen président defal moo tax ñu àndandoo li ñu àndandoo lii ànd bëgg a liggéey président delloo ko njukkal ci élection yu ñuy dëgmal ñun nag pare nañ képp ku président investir ñu ànd ak yow liggéey waaye nag à condition. du ba muy nekk ba muy métti àndoog ñun ba tey ji ñu investir la nga bëgg a ñëw toog toog toog ci benn barab rek bëgg a jàpp ne affaire sëriñ la ak ay affaire yi duñ ko def président comme ñu tegal suñu kanam danay ànd ak moom waaye kooku na wàcc ci terrain bi wax ak responsable politique yi surtout APR surtout responsable APR yi ndax responsable APR yi nekk ci département bi di ay jeunesse dañuy te mbooloo yu topp seen ginnaaw ñu ñu bëree bëri bàyyiwul ne maanaam am na si yoo xam ne ne jotaluñ ko seen digg ak président loolu na dafa jot tey képp kuñ fi investir nga nga nga déglu responsable yi ñu wax la liñ bëgg nga wax ko président ñu man laa jàppale boo bëggee président am fi ndam waaye keneen kuñ fi investir te amuloo woon njariñ njariñ population bi dañ lay woon ginnaaw wóoluñ ko ginnaaw président yow lañ woon ginnaaw kon président na bàyyi xel loolu xam ne ne engagé nañ ngir liggéeyal ko waaye engagé wu nañ ngir képp ku mu fi investir koo xam ne ne amul doon njariñ population bi nañ taxaw wax na taxawu jàmmarloog askan wi wax leen dan dan solution wala la wan doxin la nar a amaat ci lii ñu dëgmal ñu mën a ànd ak moom liggéey loolu mooy engagement yi nga xam ne ne mouvement bi jël nañ ko waaye di ko wax ci turu mbooleem responsable APR boo xam ne ne dañoo bokk maasee jamono di liggéeyal président ci département bi. message bi nag ci ñu gàttal rek soxna Ndiobo ginnaaw bu ñu leen sante suñu El Hadj Bousso ak soxna Ndiobo suñu El Hadj mooy secrétaire général bi ci ci ci coordination yu bëree bari man damaa toogum du baa mu nekk Ndakaaru daanaka lu bëree bari moo ko doon liggéey maag soxna Ndiobo ak suñu El Hadj Bousso ak mbooleem koo xam ne ne Badiane Thiam di bokk ci euh, lancement MDS développement social ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di delluwaat di wax ne président mouvement bi nga sa ginnaaw jàppale la sa condition ndax lii ñu li lii ñu def lii ñu nii tey mën na maa waat ci yàlla ne nawal président ñëw na waaye ab laaj gisagu ko ndax dafa fekk ne li li fi président indi bu ko andee bu ñëwee tamit ñun def nañ ci lu ko waaye grâce à Serigne Abdou Lahad Diakhaté ndax am ndaje li ko ëpp solo mooy communication te li war ci communication yëpp moo ko def te responsable APR yi fi nekk wala responsable politique yi fi nekk yor ay ndombay tànk yoo xam ne mën nañoo dimbali département bi bëri na te moom yorul benn fonction ginnaaw bu loolu jàllee Abdou Lahad Ka man du man li ma li sama sama turandoo bu baax naan du ma sant ku ma defulul dara waaye du xaar ba nga dikk sa bis leen rek loo xam ne bis ba weesu na bu ma ko ko dee jëfandikoo dama koy lekkaat ginnaaw ba loolu njariñ li am njariñ daal mooy amal ko njariñ pour ñi li ah. dañoo dañoo tey ba tey tey soog a ñëw uh-huh. liñ li nga xam ne après moom mënal lañ ko suñu bopp avant kay la wax avant nag ñi si ànd ak ñun la ñuy sant di ko gërëm suñu Abdou Lahad Jaxate Abdou Lahad Ka suñu Abdou Lahad communication bépp moo ko def jox ma ko ma fay ko ñu ma ko war a fay kon grâce à moom